mbokku senegaal mbokki jullit yi mbokki réew mi noo ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigalul Sëriñ Abdul Fattah mu jële ndigal li ci jëwriñam a Cheikh Mouhamadul Bachir mu jële ko ci Sëriñ Abu Baraka mii di xalifatu cheikh El Hadj Mouhamadul Fadal kàddu yi nag li ci ëpp sëriñ Mouhamadul Mamoun tudd na ko waaye damay tënk sama kàddu rekk ci ñaari tomb bu jëkk ba ñu seedeel àdduna bépp ne kër sëriñ Fallou ci ndigal rekk lañuy dox bu ñu jógee di dem ndigale leen yëkkati bu ñu jekkee ndigale leen jekkiloo moo tax bi ñuy séentu bés bi laata weer wi di tàmbali euh, la sëriñ bi demoon ca sëriñ Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ne moo fi nekkal mooy Serigne Touba tey yàlla na gën a yàgg ne ko ah sa bisub wayjur wa day eh, <clears throat> weeram a ngi bëgg a jub léegi nag tàggu si eh, <clears throat> yëgle si wuñ dañuy tàggoo si laaju ñuy ndigal it ndax boo nee sëriñ bi digal ma nangam danga koo jox ndigal waaye dañuy tàggoos mu nekkoon kon nañu ko def nañu ko daa defee danaa ko ànd ak yéen yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko sëriñ Abu Baraka nag sant sëriñ Abdul Fattah mu santal ko bokk yépp gannaaw bu mu santee yàlla li muy sant yàlla mooy ñaanoon na daaw ñu fekke ren yàlla may nu ko ñu ngi ñaanaat yàlla ñu fekke waat déwén li ma ne kërug ndigal la nag dañu ko teg ci ñetti wéeruwaay yu dëgër lii waxe suñu borom la mooy lépp moo ne woon jullit yi lu leen yónent bi digal na ngeen ko def te li ko tàmbalee tey na ngeen fexe ba bu mu leen séen ci lum leen di tere wa ma fa xuduhu waaye yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam it ngir gën ñoo jegeleel waxi suñu boroom ji moo ne déet ku ñuy déglu ndigalam kat du yam ci man daal waaye fu ngeen àndatee di ñett sax jiital leen kenn déglu ndigalam sëñ bu mag bi bind ci ay mbindam ne bu kenn damm xat te amu ca ndigal laa tafaalu cheyan bi geyri idni fal idnu chartun fi qabuli chani kon foofu lañu teg woote bi ne su sëriñ bi ne woon nañu ko fommit kenn dutu wax lu ci jëm di su ko naneete ndox ñaareelu tomb bi mooy sëriñ bi dafa ma jox ndigal ñu wone tuuti ci dunduk sëñ fallu gi bu ñu noppee kenn ku nekk jàngat ci fa mu nekk ba xam boroom dund gu mel noonu jar na wuy ji bisam walla jaru ko lu yaatu la waaye dañ cey tànn benn rekk boo xam ne dana neex a jàpp te dana mën dana yomb ñu tegloo ca nit bët jaarloo ko ca ci ay tànkam bokk yi ñun ñëpp xam nañu ne Sénégal euh, bu ñu xoolee lim amagun bi mu beroo ak tey bi mu sampee njëlalu boppam ak léegi bu ñu ko seetee ci dundug nit sax bariwul waxaale wuñ dundug réew waaye diggante bi jiitu Sénégal di ber njëlam tuuti ci misaal ñi nga xam ne <clears throat> bi année cinquante yi tàmbali fekku leen fi ñooña kenn mësu ca dugg këram bii ci ab robine xel ndox waaye bi Sénégal deme ba ber njëlam Euh, ñi fekki wut bi Sénégal di bel njëram mosuñoo ñëw Tuuba jaar ci aw yoon ñëwin wu metti lañ daan ñëw rawatina nag dugg ci sëb néeg laal dara rek làmp yi na raay yi tàkk li may lim nii maa ngi ñëw ci li ma ci jublu waaye ku ne xam na ne it ku fi senegal di ber fekkul mosoo jëm fenn ci Touba ne naa jaar ci mbedd sàngam ba àgg jàdd waxaale wuñ julli ajjuma ci jumaay Touba ji wala ngay yónnee marché Ocass walla poste de santé bi dispensaire la tuddoon bi nekk 28 wala ngay jot bataaxal boo xam ne Touba lañ la koy joxe wala télégramme ñu naan ko wax tell garam bu njëkk ku ko mosaan dégg da ngay defee ne àdduna tukki na yooyu nag ma lim ak yi ma limut tam na gàññi ci jamono suñu Fallu la fi ñëw li ma ci bëgg a jàngale mooy yooyu yépp am na Tuubaa ba Tuubaa xeb la boo ko mën a jóge dangay jaar ci aw yoon ba àgg sa mbubb du fakk nga ñëw dangay def ni sa kër rek robinet bi di xel ngay jaar ci mbedd sàngam jëm kër diw eh, di taali làmp waaye bokk yi loolu li ma ci bëgg a jàngale rek te sëriñ bi sant na ko mooy moom la lislaam di wax al moom la aaya ba di wax ne di wax ci saxaaba yi ak seeni jikko ba naan wa yuthiruuna ala anfusihim walaw bi bihim xasaasa yooyu ma lim yépp jamono bi mu koy indi Touba feneen fu mu joxoñoon ne dañ ko fa yóbbu ci dëkk yi mu sanc te daa fa liggéeyal Sëñ Touba ñu yóbbu ko fa waaye ndindi gi gën a jege Touba 2010 la fa ab tali dugg 2010 kon yor li nga yor ñépp soxla ko yàlla teg ko ci sa loxo nga séddale ko ba mu jeex te wutoo ci sab cër loolu sëriñ bi nee na ku fi jóge na ko jàng yóbbaale ko ba déwén ba lu mbokkati aku nit bu leen ko munta bàyyee it kenn ku ci nekk mu cof ca jox la waaye nag ku def ni sëñ bii def it moo gën li sëñ Fallu def moo gën séddee séddale ko toog eh, fëgg say loxo kon benn tomb boobu rek laa ciy jël doy naa jàpp bañ fekkewaat ko ci jàmm waaye it war a see mën a jàng ci dundam muy léebu wi nga xam ne arab daf ko léebu woon bu yàgg kun yenn wala takun idaamiyan isaam benn doxandéem bu ñëwoon cib dëkk la amut fum mu fanaan te mu gën a jafe yand moom yomb na nit mën nay wër ci mbedd yi ba jant bi so euh, léeg-léeg sax am ko ko kàkkalu ne ko kay barkeelu waaye fanaan a gën a jafe waaye moom sax fu mu yand woon daa jafe ndax ku ko xool ni kii ku doon daana am ci tuuwaa bu yeggutoo bi jumaa ji wax ak waa Touba gépp ci benn yoon daanañ def bu saxaar accès ñu xool joo xam ne daal day wër mbedd yi dugg ci genn kër ñu ne ci jumaa ji tey kat ku yebu teel a fatu ndax dëkk bi am naw gan ensemble nag nekk di wëndeelu ci dëkk bi ci gàttal ba xëy na léng ba saabu buur di wax day nit ba ay agsi mu soog a wax walla mu soog a jëf moo tax ñu daan léeb na nit ku nekk war naa fexe ba nekk ensemble sa jëmmi bopp self made man te bañ a nekk may doomi diw rek sëñ Fallu dey boroom Tuubaa moo ko feeñal ci jamono euh, dalal ko jàng fii ci Daaru Rahmaan moo ko sëriñ Muhammadul Moustapha sëriñ Amar Mbakke Galongal Eh, sëñ Masamba xaw leen a ñam tuuti mu boole leen ak sëriñ Abdourahman Lo gannaaw bi sëriñ Fallu dem ci loxo loxoy maam Cerno ak loxoy maam Mor Jaara waaye jaar-jaar yooyu mu jaar ci ndigalul sëriñ bi yàqu ko yàqu ca dara ndax ñaar fukki at ak dara yi mu fi nekk ak Cheikh Mouhamadul Moustapha ndigal lii ma tàmbale woon rek ca la tënku woon lu Cheikh Modou Moustapha sottal loxol suñ falloo nga jël ci ay taalibeem ak astuutam lii dañ ko ko daan sas lii daf ko daan yóbbu rek xam ne mooy Sëñ Tuubaa gannaaw bi mu fi nekkee ñaar fukk ak ñett nag ci ay at eh, daa daa daa jëloon yoon yoonu sëñ bu mag bi def naa bind na wax na bàyyi fi waaye mbindam moom ak jëfam jooju dafa war a jolli ñenn ñu nekk buñ taseeg seen jamono ñu gis ca seen bopp moo taxoon saa boo ko mësaan wax rek mu ne borom barak bi rek borom barak bi dem na ba ne sax moom ki ko doon jottali naa ko ab taalibe rek la bëgg doon mu ne bëgguma doon ab taalibe sax xanaa ne dëxoos ci biiram rek loolu nag daa mel na yàlla defal na ko ko ndax taarixu murit histoire bi ku cay wax te la muy wax di dëgg li ko tàmbalee Touba moom daanaka Touba suñu fa la tofam Touba la koy wax te muy wax dëgg moom faw mat dana ko ci limaale bu ko limaale ci njëlbeen gi dana ko ci boole ci ginnaaw bi ndax bu ñu ko weddee nañ dindi te liy jëm si Touba yépp dindi mbedd yi dindi courant bi dindi ndox mi dindi jumaa ji nettali ma ko kenn ba xam danañu amati Tuuba wala déet kon boog sëñ bay ko jur mooy way juram waaye nag daal takkaat laxasaay ginnaawam loolu it a ngi fi ci ne kenn ku ci nekk lu ñu defar ba teg ko sa loxo euh, wërta mel na meloon su melee na meloon ba ka la ko dénkoon ñëw sax yàq nga ko waaye dafa war a weesu moo tax léeg-léeg ñu naan diw bu suñ mag bi ñëwaatoon du sappi jataayam am xamkatu wolof ah bu ne ax akay sëñ bi mag bi ku mu fekk nga toog da nga soppi sa jotaay wërta wërta fekk kenn taxaw kenn kenn toog daa war a fekk ñëpp taxaw moo tax ña doon wax tañ naan dañoo ànd seeni xel kenn ka dane moroom ja xool foto sëñ bi mag ba yàgg mu ne xanaa kii day taxaw rek moroom ja ko kii bu toogee musiba am waaw loola njàngale mu réy la kon boog fi may jeexale mooy jot li cant sëriñ bi ci ministre Matar Ba ak ki mu àndal professeur ministre professeur Mame Thierno Dieng ak délégation bi nga xam ne lim nañ leen ci gouverneur ci préfet sous préfet ak ba ci maire bi ba ci chef de village bu ak délégué de quartier yépp délégué de quartier yi nag li leen ci boole mooy màggalu ren ci góorgóorlu gisuñu fa la doon góorgóorlu ba gannaawam mel nii mu mel euh, sëñ bi doon dalal daa daayira yi nga xam ne ay soppe suñu fallu lañ tudd te mën nañu bañ nga xam kenn ci njabootu suñu lu tey ñëw fii ci kës suñu aboo di ko jébbal seen liggéey kooku nee na ma léegi ëpp na juróomi téeméeri daayira yoo xam ne daanaka xamuñ xamante wuñu ak sëriñ bi sax waaye mboorom sëñ bi lañuy ñuy topp kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di beral ak cant di leen xamal na kër gaa ngi nii nekkal fi ñépp nef sëñ Fallu nekkale woon ñëpp sëñ Fallu yi doonoon misaal ci wuuf ñépp laata muy xam nit ku weex ku ñuul walla diina ju mbokk ndax mas na ne mooy senegaal doon nañ ko waxtaan daaw ca CRD ba Sénégal ñett yi ñuy xool walla yaar euh, benn bu ci nekk daa am spécialité ndax Sénégal dangay gis ci tampon yi ñu def ci ak guy guy ku ne xam na jariñam waaye dangay gis tam ñu def gaynde gaynde it ku ne xam na jikkoom ku gore la ku mën a muñ la gaynde lu xiif xiif du du lekk am ñaax day xaye ba yàlla dikk rek mu jariñu ci jox ko keneen kooko ci jariñoo ko kon ministre euh, Makhtar Ba ak ñi nga àndal ñépp sëriñ bi nee na mi ngi lay yóbbante di la fay ab nuyoo ci kilifa réew mi euh, di la xamal ne ni ko suñu Abdou Ka waxee lu wér la yiñ ko waxoon daal te mënul te magal gi mënulu ko boppam yu ci baree bare moom gis nañ ko xam naa ne lépp moom yàlla mi ko man sax defu ko defagu ko bopp waaye lu sa bari daal gisees na ko mooy yi nga xam ne mënu màggal gi mënulu ko bopp indi fi ñuy taxaw ci kaaraangeel nit ñi ku ci wéree di mu faj la bu ndox amul ñu wuti ko yooyu moom màggal gi mënulu ko boppam kon nag wuutu gi ngeen ko ci wuutu sëriñ bi nee na mi ngi leen ci sant di leen ci gërëm di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaan ci réew yi jullit yépp di fedd li kóllëre ak ñi nga xam ne yàlla dogaloon na ñu tàmbalee jaxasoog moom waaye ñi nga xam ne it bis bee leen fi indi tey nee na mi ngi fasante ñoom kóllëre te fas ko yéene sàmm bu baax a baax a baax a baax euh, kàddu yooyu daal la sëriñ bi waxoon ne nañ ko jotali gannaaw bu mu ñaawloo it euh, ci réew yu sori ya nañ fa defoon jullit yi fan yee ñu ngi koy mettit lu lool di ñaax euh, réew mi ña ca bopp ba mu jaar mën naa jaare ci yéen maxtaar ba ak délégation bi nga àndal ñu xam ne euh, diine suñu borom ji moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne woon fu sax bu fa amee kar diine gi dana fa àgg yàlla amul fenn fu ñu ko wërta jaamoo amul fenn amul place bu ñu ko wërta jaamoo amul réew mu ñu ko wërta jaamoo kon nañ ci gën a jàpp ñaan jàmm tey dox jàmm te xam ne jàmm ci la lépp xaj di metti lu yi loolit suñu dëkkandoo yu ñuy jege muy Mali la fa am bu yàggutoo sëriñ bi nee na yooyu ak yekku ya ca des yëpp yàlla na fi yam ci barke bisu sëriñ Fallu bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di la yóbbante waale du ma ñoroon la dama ko doon séeramtal fàttewuma ko muy ñu gën a dolli yërmande ci nit ñi gën leen a jege yit ndax léeg-léeg nit soxla loo xam ne lam cay daj coono bu metti lay doon te bu fa àggee it kam fay fekk yërmande jëm ca war a ëmb day xaw a des sëriñ bi ne mi ngi leen di yóbbante loolu ginnaaw moom moo fi nekkal suñu fallu te suñu fallu eh, ñi mu fi gënoon nekkal nga xam ne saa bu ñu mësee ñëw ñoom lay àndal mooy ñi gën a néew doole ñi gën a néew doole. kon sëriñ bi nee na mi ngi fàttali loolu di sant nag ci li weesu tey ñaan yàlla ñu fekk ko déwén te déwén gàcceel ren doonte ren alhamdulilahi rabbil alamin kaddu yooyu la sëriñ Abdul Fattah waxoon ne naa ko jottali ci ndigalul sëriñ bi mu jaare ci sëriñ Basiiru mbakki moom Cheikh Mouhamadul Fadal